mbokki dalli nag jàmm li gën a fës ci xëtu yéen i kaay ñu addu jëmale ci Walf Quotidien e inspection générale d'État lam ca jot xam ne nag bokk na ci nekkin bu jafe bu métti bi nga xamee ne que moom la ñu nemmeeku ñecc abi féete gannaaw kaso yooyu boo fa demee jamono ji nañu leen di dencee ci kaso yooyu le jéggi na dayo loolee Walf Quotidien di ñu xamal ne bokk na ci lu Sénégal yi umpale waaye it leneen loo xamee ne que Walf Quotidien jot nañu ko xamal ba tey ci rapport bu IGE enseignement supérieur foofu nag am na ay manquement yoo xamee ne que rapport bi fësal na ko leneen loo xamee ne fësal nañ ko ci biir Walf Quotidien mu tukkee ci rapport bu IGE yenn ci ay cérémonie de passation de service dem ba niroog ay folklore ak yeneen ci ay xeeti caaxaan yoo xamee ne askan wi jamono ji yitte woowuñ ko ba tey ci nekkinu ñooñee nga xamee ne que ñoom la caabi féete gannaaw réew mi Quotidien dikkaat ci ak ñun di ñu xamal nekkin bu jafee bi nga xamee ne que moom moo am foofu la say yenn ci ay prison yu nekk fii ci Sénégal ba am ci témoignage yoo xamee ne que tukkee na ci kenn ca ña fa nekkoon lam ca jot a xamle doy na waar waaye nag dafa mel ni ña nga xam ne ñooy kilifay kër yooyu nañ ay matuwaay am yéene daal di taxawu ña nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw ba tey ci rapport IGE boobu la direct news di wéy du ñu xamal ne que kii di président de la république mu ngi woo képp koo xame ne que ñoñom nga nga gën am responsabilité ci sa façon yu doxalin ak li nga xam ne moom moo aju ci wàllum nite gi war ci li askan wi moom ay scandale yi scandale yoo xamee ne que moom la rapport yu IGE yi nii wane boo demee ci yenn ci ay ministère bokk na ci ministère de l'enseignement supérieur ministère de l'environnement ministère de la culture ak délégation générale francophonie kërug liggéey yooyu yëpp benn bu ci nekk rapport bi teg na loxo ci ay jëfin yoo xamee ne que yu ñaaw a ñaaw la yu fa jotoon am waaye it yéenekaay bi di direct news ba tey sampub laaj ne ñaata ci ay rapport moom la président la république teg loxoom ngir mu bañ a fés askanug Sénégal ñu ngi woy di laaj nguur ak Sénégal ñu xoolaat seen façon yi doxalin waaye it kuréel yi nga xamee ne que ñoom ñoo gàlloo loju ci wàllum coytu ñu bañ am benn xaaj ak seen benn xaar ma yàlla ci liggéey ba nga xamee moom la ñuy xaar ci ñoom waaye it beneenub laaj boo xamee ne direct news xëy na ko ko daal di samp mooy ban avenir le rapport IGE yooyu noonu am si ñeenti at yi nga xam ne moom la ñuy génne quotidien dikk ak ñun ci kuréel yi di inspection générale d'État de des comptes nag ak ARMP lam ca jot xam ne nag moom mooy kuréel yi lañ ca nemmeeku moom mooy wàllum politique def ca xaw laxasu waaye it leneen loo xamee ne que mën nañ ko cee wax moom mooy koppar gu takkoo takku moom lay coûter askanuk Sénégal te amut benn njariñ source a dikk ñun ba tey si IGE inspection générale d'État maanaam dugg na ci yenn ci ay këru liggéeykaay yu fare ci nguur gi ji waaye nag lañ ca seetlu moom mooy banditisme dong moo fa fës ni jàpp lu tollook juróom-ñett ci ay employé yu fare foofee sa UCG jot nanoo retiré lu tollook 780 millions ci sunu ay koppar ñett ci ay camions de collecte yoo xamee ne benn bu ci nekk 250 000 francs moom lañ ko daan loué par journée ak beneenu camion boo xamee ne que 350 000 francs moom lañ ko daan loué foofee sa UCG ki fi nekkoon jëwriñ ci ay millions yoo xamee ne la ca teg te boobu ak léegi dégguñu benn daan boo xamee ne que teg nañ ko ca ndoddam ak yeneen ci ay jéeya yoo xamee ne que lu ci wàllum koom-koom rapport yu IGE jot na koo teg ci table président Macky Sall ba teg ci les échos yéen kay xëy def ci xëtam mu njëkk kookee di Alioune Tine la mu xamle nag ci rapport yooyu le moom mooy na nguuru Sénégal gën a jox indépendance inspection générale d'état ngir mu mën a def liggéey bu gën a mucc ayib waaye nag la mu addu jëmale moom Alioune bokk na ci ci jamonoy Léopold Sédar Senghor inspection générale d'état la taxoon ñu teg ko mooy di yëkkati liggéeykatu nguur gi ci seen façon yi doxalin waaye nag jamono ji lañ ca seetlu moom mooy dafa mel ni opposant politique yi ñoom ñoo tax ñu teg IGE benn dub seetlu mu addu jëmale ci moom Alioune dafa mel ni IGE ña jege nguur bokkuñu ci ñam war a coy waaye nag yéenekaay bi ba tey xëy def ci xëtam bu njëkk nataalu kookee di Ousmane Tanor Dieng lam ca xamle moom mooy parti socialiste ba tey ñu ngi wëy di sëngëm di jooy kookee nga xam ne moo nekkoon seen njiit di Ousmane Tanor Dieng bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu Abdoulaye léegi moom mooy ki fi nekkut te gën a feeñ coowul ndengleer ba tey kii di Aly Ngouille Ndiaye moom ni ki démb la fa wàcce ak ki nga xam ne moom mooy Abdoul Karim Fofana ak yeneen ci ay nit ñu yor ba tànk moom nag jamono ji la nekk ci ay mbébétam moom mooy mu daal di andi déggoo ci diggante waa ndengleer ak kii di Babacar Ngom bu Sedima l'observateur dikk ak ñun ci li nga xam ne moo aju ci wàllum remaniement ministériel bii ñuy ruumandaat ne Sall ci loolee la nekk di xalaat ba tey yéenekaay bi di l'observateur duñu xamal lan mooy li nga xam ne moom la président Macky Sall ci ay ministre am rapport IGE e bu 2016 jàpp 2019 it l' observateur dikk na ci lam ñuy xamal moom mooy am na yenn ci ay mbut yoo xamee ne que rapport bi sulliwaat na ko demal ca ministère de l' éducation nationale ca entente Kadakar ak waa UCG lu tolloo ko 780 millions ci sunu ay koppar yoo xamee ne que ñu ngi ko doon jëfandikoo ci anam ba mu leen neexee wàllum tàggat yaram ngir jéexal stade yéeni kaay xëy def ci xëtam bu njëkk jongante bi war a dox si diggante Arsenal ak Liverpool Mané Salah Keita ñoom ñëpp war a jàkkaarloo kookee di Aubameyang ak Pepe la ñu ca yéenikaay bi xamal moom mooy ñi gën a fës ci wàllum football nekk ay africain ñoo war a jongante ci seen biir sunu làmb dikk ak ñun ci Gaston Mbengue bi ñu wax ne moom noppi na ngir taxawal combat bi mën a dox ci diggante Tapha Tine ak Lac de Guiers numéro 2 lam ca jot a xamle nag moom mooy bu ñu tegee lépp ci yoon moom noppi na ngir daal di tëgg combat bi le foofee la ñuy jaaree daal di ndar li gën a fës ci xëtu yéenikaay ba ëllëg jërë ngeen jëf